waa asalaamaaleykum bokk internet di Diégo parle foot ah, nuyu naa leen ziar leen ah, di wax ñi soog a bees ci seen bi nañu abonné activer cloche de notification bi te aimé vidéo yi te di ko partager te ngeen ñëw ci commentaire ah, di wax seen xalaat ak seen gis-gis waa gars yi tey dañuy ñëw wax ci benn jour bu ñu woowee Bryan Soumaré Bryan Soumaré nag daaw gisoon nañ ko foofee du côté de sociaux bu Omar Daf ci Ligue 2 bu France mu nekkoon fa daaw macha allah mu wane boppam bu baax. foofee ci Ligue 2 imposé fa ci club boobu di Sochaux mais ren ji dañoo gis que ni Biran Soumaré dafa réer bu baax a baax gannaaw bi nga xamante ne delluwaat na foofee ci club am bi ko aade woon foofee ci Sochaux muy Dijon Dijon nag dañoo wàcc deuxième division. wante ren ki nga xamante moy mooy Birane Soumaré li mu jot jouer ci club bobu di Dijon bëriwul un peu temps de jeu bu bari mais ñu li intéressé ci mom moy que Birane Soumaré pour ñi ko xamul am origine sénégalais am origine sénégalaise parce que boo demee fi nga xamante moy mooy Wikipédia boo tapé bo duggé dinañ la wax que ne son nom de famille vient de son père qui a des origines françaises et sénégalaises kon donc man nañu wax que ne. Euh, am na éligibilité ngir jouer ci équipe nationale bu Sénégal waaw parce que Wikipédia information yi leer la lay jox yoo xamante ni yu wóor la te avant loolu euh, gëstu woon nag euh, ba xam que ni am nañ origine sénégalaise te defoon naa ci moom vidéo après lien bi ma defoon ci moom vidéo dinaa ko defaat ci kii bi ci ci description bi ngir ngeen mën koo seetaan donc moom c'est un milieu de terrain boo xamante ni il est talentueux milieu offensif la wante mën naa jouer milieu relayeur milieu offensif boo xamante ne gars dafay marqué ay bii dafay def ay passes décisives gis nañ ko daaw du côté de Sochaux vraiment daaw biñ ko gisee foofu noonu dañoo gis que ni am na potentiel parce que daaw dugal na 3 bi délivré 4 passes décisives ci Sochaux bu Omar Daf mais par la suite bi mu wàññeeku waatee foofu ci Dijon un peu temps de jeu bu bari li ci ëpp ci équipe réserve wala football loolu moom moo ko empêché ba nga xamante ne tey yi ñu bari mënuñu ko gis et puis